sëriñ bee te sëriñ bi soxna ay dëccu dala ba dee yaa ko jël ba muy naw yaay ki def ba mu raw sëriñ bee te sëriñ bi soxna ay dëccu dala ba dee man dégguma dara kat soxna ay dëccu dala ba dee man dégguma dara kat soxna ay dëccu dala ba dee yaa ko jël gone nga soxna ay dëkk lamp baabul muridiina mu jàpp ca loxom ba daa di koy wan yoon soxna ay dëkk def mu tëju cat mi du tëju say ndigal masu tëju lépp ngir sàkku sa mbég soxna ay dëkk mu tëju cat mi du tëju say ndigal masu tëju lépp ngir sàkku sa mbég soxna ay dëkk eh ndeke cu ñay yoon ba Aliou di dëkk ba nekk dëggay yoon ba soxna ay dutu eh na bëgg te dëgg la bëgg te bëggantu la dala bëgg te dëgg la bëgg te bëggantu la eh dala bëgg te dëgg la bëgg te bëggantu la dëggil bu dootul deñ soxna ay dutu dala bëgg ma ne ndeke ya baadam muur yaa gëli përëw eh ndeke ya baadam muur nari nari ndeke ya baadam soxna Aida Thioundala. bilay masul denc di ko jëf. soxna Aida Thioundala. ah naka ya ba dem di ko jëf. soxna Aida Thioundala bëgg. eh masul denc di di ko jëf. soxna Aida Thioundala bëgg. ah naka ya ba di ko jëf. yëm ni sëñ daja yal sa mbég fu mu toll muy xool na def na ko lu mu am mu la ko lu rëy mu xeeb ko bu ci waa ngi gindi ko xoofam mu fàtte ko yitteem muy sëñ daja ah ndeysaan soxna ay datu eh ndeysaan soxna ay datu sa suufu kër la daa lay ndeke yaa koy may lay sa mujj fii ñu ne cëy soxna ay datu bu jëfee ñu ne cëy soxna Ayda Cuun dala bëgg magal gi yaa raw jëf gamu yaa raw jëf di sedd avril rawati soxna Ayda Cuun wax leen ca kaw di sedd avril rawati soxna Ayda Cuun dégguma dara di sedd avril rawati soxna Ayda nii dala bëgg eh magal gi yaa raw jëf gamu yaa raw jëf di sedd avril rawati soxna Ayda Cuun dala bëgg moo bi gaa ñi nga raw yaa ngi ci àll bi di daw bi gaa ñi nelaw yaa ngi ci àll bi di daw ngir sa yërmande saaw wala ca kaw ngir sa yërmande saaw ah Sénégal ba Mali Côte d'Ivoire ba ba Mali Côte ba guddi risque Sénégal ba ba guddi wax leen ca kaw fu mu jaar ña nga naan wax leen ca kaw fu mu jaar ña nga naan ah fu mu jaar ña nga naan so eh ndeke tuuti cofeel gën aduna ba mu fees del wuru sagulu ni mel so ah ndeke tuuti cofeel gën aduna wuru sagalu ni mel soxna Aida Thioune waleen ca kaw wuru sagalu ni mel soxna Aida Thioune dala bëgg kàddoom gàk jëfam ya yëngoo mag dal gas kàddoom gàk jëfam ya yëngoo mag dal gas léppam cofel la soxna Aida waneen ca kaw kii léppam cofel la soxna Aida Thioune soxna Aida léppam cofel la soxna Aida Thioune dalaata waa Daaru Salaam nee nañ soxna Aida Thioune dalaata waa Daaru Salaam nee nañ soxna Aida Thioune dalaata eh waa Kalkom nee nañ soxna Aida Thioune dalaata ah kër Sëñ Tuba nee nañ soxna Aida Thioune waneen ca kaw waa Kalkom nee nañ soxna Aida Thioune dalaata lay nekk yaa ngi koy may lay sabu jëfi ñu ne cëy soxna ay na jur dala magal gi moo raw jëf gàddu moo raw jëf di sa ne am na raw ci soxna ay na jur wala ca kaw di sa ne am na raw ci soxna ay na jur wala ca kaw di sa ne am na raw ci soxna ay na jur dala di sa ne am